الحمد لله رب العالمين بيغا خامني يالا دينك نانيو اي ماك ني مل سيرن محمد منتخا مكه بشير نكوي نيانال يالا يالنا يالا غودال فنام يالنا كو يالا يوك ويرتا تخاول كو يالا كاتانال كو نيون سينيغال نيون نيو ام شانس شانس بي نيو ام موي ام ماك ني مل نونو داخ لو مل نونو دغ دغ موي تارو سينيغال موي ليغا خامني موم لا سينيغال سوخلا نيون نيغا خامني نك اي طالب شيخنا تيجان لا نك اي طالب سيدي الحاج مالك mun mënuñu def dul di ko ñaanal yàlla di ko gërëm nag gërëm goo xam ne am na fu mu commencé te amul fu mu yem di ko ñaanal yàlla yàlla yokk ko yàlla kattanal ko ndax wax dëgg yàlla Sénégal soxna la mag ñu mel ni sëñ Babacar Sy Mansour ak sëñ Mountakha Mbacké ndax ñoo xam ne nii lislaam rek moo leen ñor ñoo xam ne nii ah, turux yi nekk Sénégal yëpp ñu ànd nekk benn moo leen ñor ñooñu ñun sagu lislaam lañ sagu Sénégal lañ

ay dañoo bëgg nekk taalibe ndax nekk taalibe sax yombul yàlla nañu yàlla nangul suñu taalibe ñun ñëpp ñoo xam ku ci ne kër goo bokk yàlla nañu yàlla boole nangul suñu taalibe ñun ñoo war a xam suñu bopp taalibe dafa war a yem place su taalibe kilifa yi ñu leen di déglu di roy ci seen ay jëf ñun suñu ay kilifa wan nañu yoon sëñ Muntaxa wane na yoon sëñ Babacar Sy Mansour wane na yoon ñeneen ñi fi nekk ñëpp wane nañ yoon taalibe daal li ko war mooy topp ci ginnaaw sëriñam di xool lu baax lu sëriñam di def mu mu di ko roy di xool lu baax lu lu tarixa ba mu nekk di def mu di ko roy ndax tarixa yi comme ni ko nit ñi xamee rek ñoom ñëpp ñoo bokk benn jëmuwaay muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu maam ji baax ji Cheikhul Khadim loolu la doon liggéey suñu maam ji baax ji Seydil Haaji Malik loolu la doon liggéey yeneen mag yi fi nekkoon yëpp loolu lañ doon liggéey ba tax na ñun bu ñu ut frontière bu ñu ut fu ñu nekk Serigne Babacar Sy su daal xam naa ni lim ñu digal ñun taalibe yi mooy fépp fu lu baax nek te yàlla nekk fa nañ ko sàkku ji ak kër gu mënu nekk du tee ku ci nek nga am sa sëriñ bo xamni ni nii dina la won yalla won la yoonu yalla té lool rek la tarixa mais du concurrence du xëccu du leneen ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi lool da la am loo xam ne Abdoul Aziz ànd ak njabootu alaaji Baye la Ndiaye ñepp euh, ñu yëkëti une somme de 250 millions bo millions ko xép ko ak Abdoul Aziz yénn bi mu am ci xarala waaw loolu tam dañ ci santaat yàlla bu baax a baax di ci sant suñu Baye alaaji Alla Ndiaye mais ki ñu ci gën a sant itam boole ci mooy sëriñ Abdoul Aziz Al Amin mi nga xam ni mooy suñu sëriñ nekkoon suñu sëriñu papa ñun lépp lu ñu def kër Seydil Hadji Malick rek sëriñ Abdoul Aziz Al Amin lañ koy sant di ko ko gërëmee ndax moom moo ñu wan yoon waaye ki nga xam ni tey yeyoon na ngërëm goo xam ne amul ab mooy sëriñ Babacar Sy Mansour mi nga xam ne moo ñu may opportunité may ñu chance ubbil ñu bunt moom ñu wan ñu yoonu yàlla ba ñu mën a jël suñu ñaq mu néew ko mu bari ñu dugal ko ci yoonu yàlla ndax moom lim ñuy wax sëñ Babacar Sy Mansour moo di lii liggéeyu yàlla liggéeyu yàlla nag amul frontière yàlla mi nga xam ni moom mi nga xam ni lim ñu wax mooy lebal leen ma ma fay leen te lam ñuy fay moo ko moom te li koy lebal yëfam la ki nga xam ni li nga am lépp moo ko moom mu ni jëlal jël ci loolu nga lebal ma ma fay la ma defal la lu gën li nga ma jox kooku mënoo koo fay ki nga xam ni moo la may ni la jox ma ci benn ma defal la ko fukk muy yàlla kon wax dëgg yàlla bu ñu sëriñ Babacar Sy Mansour wooyee ci liggéeyu Seydil xaaji Malick ñi ngi koy sant di ko gërëm ndax opportunité la yombul ci jamono nga jamono ci lu mel nii ñu woo ci ngir nga dugal ko ci sa alal ki la ci woo moom nga war a gërëm kon boobu ñu ngi koy gërëm di ko sant di wax ni liggéeyu Seydil Hadji Malick bi liggéeyu yàlla la Seydil Hadji Malick loolu la ñu jàngal kon bu ci Sénégal yëpp jàppee ndaw ñëpp jàpp ci te ñun ndaw ñi tam nañu am chance yàlla may nañu chance ndax jumaay Tiwaawan ji mën naa ni ñun at biñ koy commencé ci lañ juddu muy en 1979 ah biñ koy fondement di ko sos boobu ay tout tànk lañ yoo xam ne ci raam lañ toll ñuy dem ba jëmmi jamono yàlla kàttanal yu ñu mën a fekk liggéey bi te woote yi fi jaaroon bari na mais ñu am chance su fekkee benn woote bu mel nii ngir lu ko yeggale kon boobu kilifa gi ñu may opportunité bu mel noonu duñu mën a def lu dul ñaanal ko yàlla di ñaan yàlla nag di ci woote un appel mooy mboolem koo xam ne nii tey. liggéeyu yàlla ñor na la te liggéeyu yàlla weesuwul tabax jumaa tabax jàkk ñu ngi la ci woo nga def ci sa kéemtalaay kattan ngir jumaa ji yegg di sagu sa Abdou Aziz dem ba benn instant min liggéey bi sori na ci xolam mu jigi mu xaaju ne bu jaroon ma jaay sama bien yëpp ngir def ko ci jumaa Seex Seex Seydi a Hadji Malick waaw man xam nga damay koy faral di wax man soldaaru Seydi El la man suma bakken bii Seydi El Hadji Malick moo ma ko gënal man sagu Seydi El Hadji mooy suma lépp ni ma ko waxee woon laa ko gëmee mais maa ngi sant yàlla bi liggéey bi taxawee yàlla suturaal na ma maak suma njaboot ànd ak suma ay waajur ak sumay ay ba ñu am luñ ci mën a def te jaayuñu suñu dara kon boog loolu sant yàlla la te pas-pas boobu ñu ci amoon tam ak yéene boobu ñu ci am tant que jumaa ji noppiwul ñun dañoo doore rek ci deux cent cinquante millions mais xalaatuñu mukk liggéeyu Seydil Hadji Malick ñu ci wut fu ñu koy yemale ak fu ñuy àpp loolu dañ ko commencé rek dañ ko ubbee liggéey bi rek mais liggéeyu Seydil Hadji Malick ñun amuñu ci fu ñu yem ñun tànk parewul ba ñu joxe caabi yi pour ñun defaguñu dara te incha allah loolu la ñuy ñaan yàlla di ci ñaanal Sénégal yëpp nag képp ku nekk ak foo mën a nekk yàlla na la yàlla may kàttan ak mën-mën nga mën ci dugal sa ñax ci liggéeyu yàlla boobu.